ñu ñëw tuuti nag ci ak fàttali ci juróomi fan ci mois de septembre ci atum 1895 di bis boo xam ne nii ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag julli woon na ko ci bureau gouverneur bu Ndar ginnaaw bu ko autorité coloniale yi soxlaa woon ngir nag mu wuy si leen ci dëkk boobu nag di Ndar Géej ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim yónni woon ay ndaw ngir nag ñu wuy jiil ko nasaraan bi ci lan nag la ko nasaraan bi doye nag ci woo gim ko woo ginnaaw ba ndaw ya demee muy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru ak kuñ doon wax sëriñ Demba Kebe nasaraan bi nag mi ngi nag ñooñu nag di leen wax ne yéen soxla wu ma leen ka leen yónni nag moom laa soxla woon ginnaaw bu maam Cerno Ibrahima Faati ndaamal daaru ñibbisee ci Mbàkke Baari Jolof ak Sëriñ Mademba Kebe nag mi mu àndaloon Seexul Xadim nag ginnaaw bu gouverneur bi yónni waatee laneen ndaw di ko xamal ne ndaw yim leen yebaloon kat ñoom soxla ko moom lañ soxla Seexul Xadim nag àndoon nag ndaw loola waaj nag ngir wuy ji nasaraan bi nag ci dëkk boobu nag di ndar géej ndaw li autorité coloniale yi yónni woon nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari Jolof te Seexul Xadim nag waxanteeg seexul xadim di ko wax ne nag nasaraan bi moom moo la soxla ci dëkk bee mu nekk nag di ndar géej seexul xadim nag waxtaanoon nag maam Cheikh Ibrahima Fatim Mbàkke ndaamal daaru ngir ñu defaral ko bagaasam ngir nag mu ñëw wuy nag nasaraan bi ci lan la koy doyee bis bi nga xam ne ñu ci la seexul xadim jógee nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari Jolof moo tombe woon nag bisub samedi fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru safar ci atum 1313 ci gàddaay gi samedi fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru safar ci atum 1313 ci gàddaay gi dëppoo woon nag 1895 samedi 10 août 1895 ci fajaruk samedi googu nag la seexul xadim bàyyi koo ci dëkk boobu nag di mbàkke baari jolof ànd ak nag ñenn itim nag ci ay taalibeem ànd ak itim nag ndaw li nga xam ne nii moom la gouverneur bi yónni na ngir mu jël si ko muy maam abduloo ginnaaw bu ñu jógee mbàkke baari jolof nag ñi ngi dem nag ci dëkk bii nag di jeewal ci dëkk boobu itam nag la ñu yendu ci dëkk boobu itam nag la ñu fanaan ginnaaw jeewal ci fukki fan ci mois de août ci atum 1895 bët set di dimanche di fukki fan ak benn nag août ci atum 1895 seexul xaddim nag bàyyi koo jeewal ngir fas yéenee dem nag ndar géej mi ngi jaar kokki nag fanaan ji lugaloo ci guddig dimanche googu nag di fukki fan ak benn ci mois de août ci atum 1895 bët set di altene mu yendu nag ci dëkk boobu nag di lugaloo ci gaar bi ba ci tàkku saanuk altene ji di fukki fan ak ñaar ci mois de août ci atum 1895 saxaar gi nga xam ne nii moo jóge woon ndakaaru nag ngir fas yéenee dem nag ci dëkk boobu nag di ndar géej ginnaaw nag bu mu tolloo nag ci dëkk boobu nag di lugaloo la gaare nag ñaar bi ñu jële seexul xaddim nag foofu mu nekkoon dugal ko nag ci saxaar gi ngir fas yéene koo yit nag gouverneur bi nga xam ne ni moom moo ko soxla nag ci ndar géej kon seexul xaddim nag mi ngi egg nag ci dëkk boobu nag di ndar géej bisub altene ñaar fukki fan ci weeru safar ci atum 1313 ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ci weeru safar ci atum 1313 ci gàddaay gi dëppoo woon nag muy lundi 12 août 1895 lundi 12 août 1895 ci timis googu nag la seexul xaddim egg ndar géej ginnaaw bu mu eggee nag ci boobu nag di ndar géej tubaab bi itam nag doon na sàkku nag ci seexul xaddim ngir nag di ko laaj nag fan nag la bëgg a nekk nag ci dëkk bi nag di ndar géej ba keroog ñu koy soxla lii di gouverneur bi itam nag waxoon na seexul xaddim nag place yu takkoo takkoo takkoo takku na wax nag ban moo ko ca gënal ginnaaw bu seexul xaddim taamoo nag fi nga xam ne nii moom moo ko gënaloon nag ci dëkk boobu nag di ndar géej nag ba noppi tubaab bi itam nag bàyyi woon na seexul xaddim itam nag mu dem foofa nekk fa waaye nag ci diggante boobu nag seexul xaddim taamoo fi nga xam ne nii moom moo ko gënaloon nag nag tubaab nag di bi nag jëlewaat na nag ci bërëb yooyu yóbbuwaat ko nag ci yeneen i bërëb ngir nga xam mi nag ni mu doon baree nag ci bërëb nii nag jaar na fa nag ci dëkk boobu nag di ndar géej nag ñu mën caa ràññee quartier bi ñuy wax soor ci kër Ahmed Xurey Seen nekkoon ab interprète nekkoon ne tim nag naarub gànnaar foofu itim nag la seexul xaddim njëkk a nekk ci ndigal loo xam ne nii nag moom taamuloon na ko boppam nag ci kilifa yi nga xam ne ni itim nag tubaab bi sàkk woon na itim nag bu fekkee ne seexul xaddim bëgg na faa nekk mu nekk fa kon kër Amet Xuray Seen nekkoon ab entreprête nekkoon itim nag naarub gànnaar ci dëkk boobu nag di ndar géej kër Amet Xuray Seen gii nag léegi nag bërëb boobu nag ab école élémentaire la ñu gën koo xam ci école élémentaire xayaar mbeng moom la jamono ji nag ci ndar géej la tax bi jële woon ko nag ci bërëb boobu nag de sécurité la ndax mbooloo mu bari mi nga xam ne nii nag doon nañ fa fekk nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool te tubaab bi itam nag loolu dalul woon xelam ñaareelu bërëb bi nga xam ne nii nag yóbbu nañ fa ku baax ki sëriñ xaadim rasool nag ci diir bi nga xam ne nii nag nekk na ko ndar mooy fi banque de sang bi nekk ci ndar géej nekk foofu nag am na ñenn nag ci boroom xam-xam yi ñu wax ne lenn ci colon yi di kilifa yi nga xam ne nii ñoom ñoo yoroon a ci ndar nekk foofu itam nag am magasin moo fa ne woon ci kër googu daanañ fa denc itam nag seexul xaddiim waaye la nga xam ne nii itam moom moo ko fa jëlee lii di ka fa nekkoon soxnaam nag am médecin la woon doon na waxtaan nag boroom këram nag di ko xamal ne nag kii ñu la jox nag nga di ko tëj nag ci magasin bi jaaduwul ndax kat ñun ñi nag di yëngutu nag ci wàllu médecine xam nañ ne tëj doomu aadama du dox du yëngutu lool daal baaxul dara nag ci wàllu wér gi yaram deret jëm yor nag dafa war nag di dox ci yaram wi soo ko tëjee benn place nag deret ji nag du dox itam nag mën koo indil jabaru médecin bi nag xamalee loolu nag médecin bi autorité coloniale yi tim nag déggoon nañ ko léeg-léeg itim nag daanañ ko bàyyi nag muy xëy nag di doxantu ndax itim nag la leen médecin ba wax nag ñu mën koo respecté saa buñ ko masaa xëy nag di ko bàyyi nag muy doxantu fu mu ëppoon nag lim daa toog nag ci ndar nag ci jamono jooju muy foofu nag banque boobu nekk nag di SGBS ci banque boobu nag la daa toog nag lu baree baree bari ci bërëb boobu ba tey itim nag am na jàkk ju fa nekk nag juñ tudde jàkkay seng foofu itim nag wax nañ ne fa la tàmbalee nag xasida gi nag di asiiru itam nag ci ndar géej ginnaaw bi nag lañ ko jëlee foofu nag yóbbu ko itam nag ci quartier bu ñuy wax nag Roñaan Nord ci Roñaan Nord googu itam nag nag la wéy nekk ba le 4 septembre ci atum bët set nag di le 5 ci atum ñu àtte ko nag ci bureau gouverneur bi keroog biñ koy àtte itam nag àtte wuñ ko nag ci tribunal waaye tribunal bi nga xam ne nii nag moom la administration nag bi fi nekkoon taxawaloon muy conseil privé boobu ci lañ ko ñetti kilifa yi fekke àtte mooy ku ñuy wax monsieur Mouté moom moo nekkoon président ndaje ba nekkoon itam nag gouverneur bi nga xam ne ni moom moo remplacé gouverneur bi fi nekkoon ñaareelu doomu aadama nag bu fekke àtte ba bisub keroog mooy ku ñu doon wax Ersan Gili moom moo nekkoon commissaire des colonies chef du service administratif ñetteelu doomu aadama bu fekke àtte ba mooy ku ñuy wax Boye moom lieutenant colonel la woon di commandant supérieur des troupes par intérim ñeenteelu doomu aadama bu fekke àtte ba bisub keroog mooy ku ñu doon wax Jorket Jorket mi nag directeur de l'intérieur réer la woon par intérim juróomeelu doomu aadama nag bu fekk àtte ba bisub keroog mooy kuñ doon wax monsieur le clerc médecin principal la woon chef du service de santé juróom benneelu doomu aadama nag bu fekk àtte ba bisub keroog mooy kuñ doon wax monsieur orgarette lieutenant de vaisseau la woon délégué du commissaire de la marine juróom ñaareelu doomu aadama nag bu fekkee àtte ba bisub keroog mooy monsieur Bessiat conseiller privé titulaire juróom-ñetteelu doomu aadama nag bu fekkee àtte ba mooy ku ñu doon wax monsieur Lumbène conseil privé suppléant la juróom-ñetti doomu aadama yii nag ci ay tubaab nag ñoo fekke àtte ba ak ñoom seeni garde ak Duudu Sekk Ben Maxtaar mi nga xam ne nii nag moom moo doon tekki nag kàdduy seexul xadim yi ci tubaab di tekki itam nag kàdduy tubaab yi itam nag ci wolof ngir seexul xadim mën a wax ak nag nasaraan bi ak moom nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ak ñenn nag ci ay doomu aadama yoo xam ne nii nag danañ leen may nag ñu fekke nag àtte bi ngir xam itam nag lan la ñuy tuumaal seexul xadim muy saal boo xam ne nii nag ñi ciy dugg nag du bari dañ koy tëj alximis fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu ci atum 1313 ci gàddaay gi alximis fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu ci atum 1313 ci gàddaay gi dëppoo woon nag muy jeudi 5 septembre 1895 jeudi 5 septembre 1895 muy diir bi seexul xaddim jógee Mbàkke Baari Jolof ba niñ koy àttee mu toll ci ñaar fukki fan ak juróom yoo xam ne ni am na ko nag ci dëkk boobu nag di Ndar Géej ca bëccëgu ñaar fukkeelu fan ba ak juróom lañ ko àtte mu tombee woon nag 5 septembre ginnaaw buñ àttee nag seexul xaddim ba noppi noppi nag autorité yi nag ñi ngi doon xamal nag seexul xaddim wala ña fekke woon atte ba di wax ne daal seexul xaddim dañ ko war a jële nag ci réew mi nag di Sénégal yóbbu ko itam nag ci réew mu ñuy wax Congo française liñ koy toppee itam nag bokk na ci taxawal mbooloo nag te amu ci sañ-sañ ginnaaw buñ ko yóbboo nag ci réew moom nag di Congo française weeru jot itam nag daañ ko fay fukki dërëm ngir mu dund ci liñ ko war a tëj itam nag mooy fukki ati di ko yor nag ci dëkk bii nag di di ndar géej ci bisu fukki ak juróom weeru septembre muy fukki fan ak ñett nag ci kanam mu dëppook àllarba 18 septembre 1895 su boobaa nag la fiy bàyyikoo nag dem ndakaaru su demee ndakaaru itam nag ci suñuy loxo nag lay nekk ba keroog itam nag bato boobu ko fi war a jële ngir yóbbu ko nag ci Congo française bi ñëw guddik tey gii nag ñi ngi koy fanaanal nag ci cellule bi nga xam ne nii moom moo nekk nag fii nag ci gouvernance bi bu subaa nag ci le 6 septembre ñi ngi koy yóbbu nag ci camp militaire bi nga xam ne moom moo nekk nag ci Rognan Nord ngir mu wéy nag nekk foofa nag ba le 18 septembre laataa mu fay jógee gisoon na fa nag ku ñuy wax maa bay njaay doon ko xamal ne sama tukki bi nag seede nga ciy nekk danaa dem danaa dikk te dang ma seede laataa seexul xadim nag di jóge ndar ngir dem nag ndakaaru def na nag ndar géej weer ak fukki fan ak ñeent ndax 12 août 1895 ba 18 septembre 1895 weer la ak fukki fan ak ñeent ginnaaw buñ ko jëlee nag ci dëkk boobu nag di ndar géej nag lañ ko yóbbu ndakaaru ndakaaru itam nag ñetti fan nag la fa seexul xadim am mercredi 18 septembre 1895 nag la fa dem am ba samedi 21 septembre 1895 samedi 21 septembre 1895 la jógee nag ci dëkk boobu nag di ndakaaru nag ngir fas yéenee dem nag ci réew mi nag di Congo française ginnaaw bu mu nekkee nag ci réew moom nag di Congo française ñu gën ko xam nag ci Gabon jamono ji ma fa jógee itam nag ci réew moomu ci le 20 septembre ci atum 1902 ñu bisiwaat nag ci réew mii nag di Sénégal bari na itam nag fu fi jaaraan moom Seexul Xaddiim ndax yóbbuwaat nañ ko fi gànnaar ginnaaw gànnaar itam nag dem na fi ca yéen Jolof ginnaaw ca yéen Jolof itam nag nekk na fi njaareem ba tax ci njaareem bakkan googu itam nag la génnee àdduna ci bëccëgu fukki fan juróom-ñeent ci mois de juillet ci atum 1927 ñu indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba dëkk boobu itam nag di ndar géej nag ay doomam nag wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di ndar géej yoonu seexul xaddim yi itam nag wéy nag di màgg di mouridisme ginnaaw bu doomu ndar yi nag wéyee nag di màgg yoonu seexul xaddim yi itam nag wey nag di màgg bari na itam nag ci dëkk boobu nag di ndar géej itam nag ñu fa mujj nekk nag ay murit jaayanteeg nag njabootuk seexul xaddim gi murit yooyu nekk ndar géej nag ñu mujj nag taxawal nag nag bu ñu jagleel seexul xaddiim ngir nag di ko fàttaliku nag ci li ñu tudde ak màggal ñu jàpp ko nag juróomi fan nag ci weeru septembre di bis bi nga xam ne nii nag ca la seexul xaddiim nag jullee woon ci seen bureau gouverneur boobu da ci fàttaliku jaar-jaar boobu nga xam ne nii nag seexul xaddiim nag def na ko nag ci dëkk boobu nag di ndar géecë ak julli googu nga xam ne itam nag julli na ko fa di xam ne nag lislaam rek moom mooy dëgg tax na nag lenn itam nag c doomu ndar yi jort na itam nag ni seexul xaddiim nag di amee bis fu ne ñoom itam nag war nañ koo wutal bis nag ci dëkk boobu nag di ndar géej def na fa itam nag lim def nag ci dëkk yépp wala jaar na fa itam nag comme ni mu jaare nag ci dëkk yëpp te def na itam nag ci ndar loo xam ne ni itam nag lislaam du ko fàtte ba mukk ndax jaloore la muy julli nag ci bureau gouverneur màggal googu sax di ñaar rakkay ndar yi nag ñu wax leen nag lan moo tax nag waa ndar géej nag di ko màggal ginnaaw nag bi mu amee nag benn association nag ci dëkk boobu nag di ndar géej di ñoo xam ne ni itam nag ay géwal lañ saa su ne itam nag daanañ toog nag benn place nag di waxtaan ci lépp xam ne ni nag dana jëmale nag seen dëkk boobu nag di ndar géej kanam ci jataay yooyu nag ñu daa amal nag ci la amee benn bis nag ñuy waxtaan doon xamalante nag ci biir lan moo tax nag ci dëkk bi nag di ndar géej nag ñu fee wut nag benn bis boo xam ne nii nag waa ndar nag danañ xam ne nag lii nag seen bis la ginnaaw nag bu kàddu googu nag jógee nag ca mbooloo ma kenn ku nekk nag gis-gis bi nga xam ne nii nag amoon nga ko nag keroog nag ca jataay ba am na ñoo xam ne nii nag jortoon nañ ne wut bis boo xam ne nii daal bisub sabaru la lu ko gën nag ci ndar géej nag amul am na ñeneen itam nag ñu bokkoon ca jataay ba ñu foog ne daal wut bisub làmb wala daal di organiser làmb saa su ne itam nag lu ko gën itam nag ci ndar géej amul am na ñeneen itam nag ñu nekkoon ca jataay xam ne ni daal jort nañ ne buñ ko defee nag ci ndar géej googu itam nag lu ko gën nag du am kuñ doon wax nag Mapaali Seen nekkoon artiste di yëngu nag ci wàllu peintre moom moo xalaat ne waa bis bii xam ne nii nag ci la Seexul Xaddim julli woon nag ñaari nag ci dëkk bis boobu nag di ko màggal ci fàttaliku Seexul Xaddim ndax gis nañ ne kat ci biir bis boo xam ne nii kat ci la Seexul Xaddim defee dara te ñun nag am nañ bis boo xam ne nii itam ci la Seexul Xaddim woon ci bureau gouverneur bi est-ce que buñ jëloon bis boobu nag du baax xalaat yépp itim nag mujjoon nañ nag dëppoo nag ci xalaatu Mapali boobu nag nekkoon artiste peintre doon ko wax ne nag wax nga dëgg moonte de lii lépp nag ñu bëgg a def nag ci ndar géej màggal ñaari rakkay seexul xaddiim yi daal lu ko ëpp farate amul te buñ ko defee nag kenn du ñu mën a ŋànk nag ci dara ñoom ñëpp itim nag ñu maase juboo ci wax na itim nag nañ gën a wéel nag ay waxtaan xool nag naka la ñuy organiser bis boobu ku ñuy wax nag Abdou Xaadir Sène moom itim ba itim réunion ba noppi nag ba juboo nag ci bis boobu nag di ñaari rakay ndar yi moom moo demoon nag seeti woon nag ku ñuy wax nag ma dikke wàdd doon ko xamal ne ñun kat ginnaaw bu ñu dajee nag ba noppi dañoo xalaatoon nag bis bi nga xam ne nii seexul xaddim ñëwoon na ko ndar géej nag julli fi nag ci bureau gouverneur ñu xalaatoon ne daal bis boobu nag dañ ko war a jël nag di ko jëmmal di ko màggal waaye nag côté organisation nag yow yaa ñu ci ëpp xel koo bàyyee organisation bi mu jiite ko mën na leen a jàppale daal ci bis bi waaye mënul nag ñëw nag bu ko defee nag kenn ci mbooloo mi nag di ko fakkastal buñ ko bàyyee xelam daal li nga xam ne ni moom mooy organisation bi daal dana leen ko mën a defal daal ba mucc ayib ginnaaw bu sëñ Abdou Xaadir Seen nag ñëwee waxalaat ko mbooloo mi di leen wax ne daal gisoon naa ma dikke wàdd doon ko xamal ne daal suñ bis bi ñu bëgg a taxawal bu ñu sañoon na na ko mi ngi xamal mbooloo mi daal xelam naa ñëw daal jiite ko waaye lu dul loolu nag moom du man yooyu mbooloo mi nag àndoon na ñoo nag ma dikka wàdd nag ci bëgg-bëggam boobu fekk si ko itim jox ko mbooloo nag mu jiite ko ngir ñu amal nag bisum ñaari ràkka yooyu nag ci dëkk boobu nag di ndar géej kon ma dikka wàdd nag mooy ki ko njëkk a organiser ànd nag géwél yi nga xam ne nii nag ñoom ñoo ko xalaatoon ci 1976 itim événement bi ci njëkk am bi ci njëkk amal nag ci mois de juin ñaareelu màggal gi amoon itam nag ci 1977 ñi ngi ko amal nag ci mois de septembre màggal gi amoon nag ci 1978 ñi ngi ko amal nag ci mois de juillet doon nañ fexe nag at mu jot ñu amal nag lii di xew-xew bi te nañ ko jàppe daal ca weer wañ taamu ca at mooma noonu itam nag ni lañ ko wéel ba ci atum 1980 événement bi itam ñu ngi ko daa amalee ci jumaa ji gën rëy nag ci ndar fi mu nekk foofu itam nag fa lañ ko daa amalee ginnaaw bu seen yëngu-yëngu mate nag ñu dem nag ci quartier bi ñu tudde bayaa ngir jullee fa nag tàkkusaan waaye nag musuñoo julli nag ñaari raaka yi seexul xadim julli ndax ñoom tàkkusaan lañ daa julli muy ñeenti raaka yi nii nag lañ daa organiser xew wi yëf itam nag doon na def itam nag at mu jot itam nag mu gën a màgg dem na itam nag ba lenn nag ci magi ndar yi nga xam ne nii bañoon nañ mujj gi nag gouverneur ba fa nekkoon nag jamono jooju tere woon itam nag lii di manifestation bi ndax nag ma dikke wàdd nag bi ci bokk ma dikke wàdd itam nag bañkat la woon te jubawut woon nag président bi fi nekkoon itam nag di Léopold Senghor ba tax na itam nag moog Léopold Sédar Senghor itam nag bari woon nañ ak réeroo réeroo googu itam mu amoon nag moog Madické Wade tax na itam nag Madické Wade bépp xew-xew boo xam ne ni itam nag ñu ko cay tudd ak itam nag lu xew-xew ba lislaame lislaame lislaame nguur gi fi nekk itam nag du ko wóolu bañkat la boo xam ne nii àndul nag ak nguur tax na nag gouverneur bi nekkoon Ndar géej nag ci jamono jooju am na ci at moo xam ne ni itam nag organisation ñaari yi nag biñ ko bëggee amal li di gouverneur bi da koo tere woon muy manifestation boobu waaye nag ñu yem ànduñu woon nag ci xalaatu gouverneur bi ñoom itam li ñu doon xalaat mooy manifestation bi daal fuñ jaar def ko ginnaaw nag bu ñu ñëwee nag ba ca bisu manifestation bi lii di gouverneur ba fa newoon nag yabaloon na béere rouge yi nag ngir itam nag ñu tas nag manifestation boobu nga xam ne nii ma dikke wàdd ak i gaayam nag ngi koy amal bisub keroog itam nag suñ borom nag moo ci def sutura ndax aw xiin wu méttee métti itam la amal nag ci ndar géej biñ demee nag ba war a jàmmaarloo muy ñii amal nag ñaari ràkka yi ak ñi nga xam ne nii kat ñoom ñooy gémi yi nga xam ne nii kat ñoom la fu gouverneur bi yabaloon ngir ñu tas manifestation yi demee nag ba war a jàmmaarloo la xiin wa sàqi kenn ku ne nag ci ñaari camp yi yaa ngi doon xool nag noo rawalee sa bopp kon xiin woowu nag suñ boroom amaloon bisub keroog ak taw boobu mu fa amaloon moom moo waral nag ñaari camp yi nag jàmmarloo wuñ ñi doon organiser nag xam ne seexul xadim lépp loo koy woo te muy dëgg mu atte wala lépp loo koy woo te muy dëgg itam nag da ko ca gis te déwén sa nag lañ sol seenu dàll wala laataa nag déwén s nag lañ sol seenu dàll wax ne nag dañoo bëgg a seet si général des mourides nag bi fi nekkoon ngir yëgal ko nag loolu itam nag ñu bëgg a nag ci ndar géej defee délégation ñëw nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba fekk fi Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ginnaaw bu ñu waxee nag seen i tànk nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba noppi Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag tontuwul Serigne du Mamoun ñan booba nag moom moo nekk nag secrétaire permanent nag bu Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom moo xamal nag délégation Ndar boobu di leen wax ne lii ngeen wax de dégg nañ ko xew-xew itam nag képp ku koy def te di ko defal nit da nga koy def nag ca bis ba nga xam ne nii nag moom la ko defoon te ngeen a jël nag juróomi fan nag ci weeru septembre ngir nag di ci màggalal Seexul xaddiim ci bis boobu nag la julli woon nag ñaar ràkka yi nag ci dëkk boobu nag di ndar géeca dee na jël bis boobu nag di ko màggal ginnaaw bu sëriñ Moodu Maamun ñang nag waxee lool nag mbooloo mi jóge woon ndar géej nag ngir doon yëgal sëriñ Tuubaa Seex Abdul Ahad xew-xew boobu nag ñuy amal nag ci ndar géeca ñoom itam nag àndoon nañ nag ci xalaatu sëriñ Moodu Maamun ñang bi biñ demee nag bay tàggatoo nag la leen sëriñ Tuubaa Seex Abdul Ahad di continuer nag di màggal seenu màggal ci juróomi fan nag ci mois de septembre ci lañ xalaate na kon nag war nañ koo tudde nag ay doomu aadama bu fekkee melal kon nag yëf yi war nañ koo delloo njabootuk seexul xaddiim gi ci 1980 nag màggal giñ ci njëkk a amal nag ngir tudde ko kenn nag ci njabootuk seexul xaddiim gi ci màggal googu itam nag lañ ko amal lu ko jiitu nag muy li ko dale nag ci ba ci tudde wuñ ko benn doomu aadama ci nag lañ ko tudde nag cheikh mamadul moustapha mbàkke mi nekkoon nag premier xalifa xaadim rasuul ñaareelu doomu aadama nag buñ tudde bis boobu nag di ñaareelu xalifa ku baax ki sëriñ 1981 ñetteelu doomu aadama nag buñ tudde bis boobu nag di ñaari rakkay ndari di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di rakki ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci atum 1982 ki ci topp mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ci atum 1983 nag lañ ko tudde ñaari rakka yi ka ca topp mooy Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci atum 1984 nag lañ ko tudde ñaari rakka yi ka ca topp mooy maam Cheikh Anta Mbàkke ibnu Maam Mor Anta Sali Mbàkke di rakki ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim rasul ci 1985 nag lañ ko tudde ñaari ràkka yi ka ca topp mooy cheikh Massamba Mbacke ibnu Mamor Anta Sali Mbacke di rakki ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim rasul ci atum 1986 nag lañ ko tudde ñaari ràkka yi ka ca topp mooy sëriñ cheikh Mbacke Gaynde Fatma ibnu cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ibnu Xaadim rasul lañ ko tudde ñaari ràkka yi ka ca mooy sëriñ Moodu Awa Balla Mbacke ibnu Maam Cerno Ibrahima Faati Mbacke Ndaamal Daaru ibnu Mamor Sali Mbacke ci atum 28 nag lañ ko tudde ñaari ràkka yi ka ca topp mooy cheikh mamadou lamine baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul ci atum 1989 ko tudde ñaari ràkka yi ci atum 1990 lii di ñaari ràkka yi nag amul wala ñaari ràkka yi nag tudde wuñ ko kenn li tax nag tudde wuñ ko woon kenn ci ñaari ràkka yi nag dafa jege woon nag màggaluk fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru safara wi di màggaluk tuubaa gi at moomu di atum 1990 dañoo bër màggal gi ci atum 1991 di màggal ga ca topp sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke mi nekkoon ñetteelu xalifa ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul la ñu tudde màggal gi ci atum 1992 sëriñ ousmane mbàkke ibnu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ibnu maam mor anta sali mbàkke la ñu tudde màggal gi ci atum 1993 masuran suran bokk itam nag ci jàmbaar yi toppoon ci ginnaaw cheikh mamadul moustapha mbàkke def itam nag lu takkoo takku nag ci yoonu murid wi nekk nag doomu ndar géej la ñu tudde màggal gi ci atum tudde màggal gi sëriñ Hamsatu Jaxate nekkoon nijaayu sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Touba Cheikh Souhaïbou Mbacke ci atum 1995 lañ tudde màggal gi ñeenteelu xalifa xaadim rasuul di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke ci atum 1996 lañ tudde màggal gi doomu sëriñ Touba Cheikhul Xaadim biñ doon wooye sëriñ Souhaïbou Mbacke ci atum 1997 lañ tudde màggal gi sëriñ Ndaam Abdourahman Lo bokkoon itim nag ci jàmbaar toppoon ku baax ci sëriñ Touba Xaadim rasuul suur def itam nag lu takkoo takku nag ci yoonu murit ci diggante jàng ak jàngale ci 1998 lañ tudde màggal gi doomu seexul xaddim biñ doon wooye sëriñ Ibrahima Mbacke ci atum 1999 fob màggal gi nag tudde ko Cheikh Issa Diène bokk itam nag ci jàmbaar yi toppoon ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Xadim Rasoul ci atum l'an 2000 lañ fob màggal gi nag tudde ko doomu seexul xaddim biñ doon wooye sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ci atum 2001 lañ fob màggal gi nag tudde ko jàmbaari seexul xaddim ba doomu nijaayu seexul xaddim xaadim ba sëriñ mbàkke busoo ci atum 2002 lañ fa màggal gi nag tudde ko sëriñ mëndumbe mbàkke boroom déndéey bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci atum 2003 lañ fa màggal gi nag tudde ko sëriñ masamba jóob saam bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci atum lan 2004 lañ fa màggal gi nag tudde ko sëriñ cheikh awa balla mbàkke moom maam Ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci atum 2005 lañ fa màggal gi nag tudde ko cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim fàttewul ci atum 2006 lañ fob màggal gi tudde ko sëriñ Abdul Samad Mbàkke ibnu ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci atum 2007 lañ fob màggal gi nag tudde ko sëriñ Moodu Maamun Mbàkke moom maam Cheikh Anta Mbàkke ci atum 2008 lañ fob màggal gi nag tudde ko doomu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ba di sëriñ Moodu Mustapha Mbàkke Faliilu ci atum 2009 lañ fob màggal gi nag tudde ko sëriñ Mustapha Mbàkke Bachiru mi nekkoon doomu Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci atum 2010 lañ fob bopp màggal gi nag tudde ko sëriñ mbàkke soxna loo mi nekkoon doomu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma doomu cheikh mamadul moustapha mbàkke la ci atum 2011 lañ fopp màggal gi tudde ko sëriñ tuuba cheikh saalihu mbàkke mi nekkoon juróomeelu xalifa sëriñ tuuba xaadim rasuul ci atum 2012 lañ fopp màggal gi tudde ko cheikh mamadul lamin baara mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke nekkoon nag juróom benneelu xalifa xaadim rasuul ci atum 2013 lañ fopp màggal gi tudde ko doomu maam cheikh anta mbàkke biñ doon wax sëriñ ibrahima mbàkke ndar Dakar nekkoon na itam nag ñetteelu xalifa maam Cheikh Anta Mbacke ca atum 2014 lañ fob màggal gi tudde ko doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke biñ doon wooye Serigne Abdoul Aziz Baara mi nekkoon ñaareelu xalifa Cheikh Mamadou Lamine Baara ca atum 2015 lañ fob màggal gi tudde ko Serigne Abdoul Khafour Mbacke mi nekkoon doomu Mamor Jaara Mbacke nekk itam nag doomu Mamor Jaara Mbacke bi mujjee toogaayam ca atum 2016 lañ fob màggal gi tudde ko Serigne Abdoul Akim Mbacke moom Cheikh Mamadou Bachir Mbacke moom Serigne Touba xaadim rasuul li ko dale nag ci 1980 ak léegi ñii ñu leen tuddal nag lañ tuddeegun màggal gi muy ñaari ràkkay ndar géej yooyu di bis bi nga xam ne nii ci la seexul xadim nag jullee woon ci bureau gouverneur bi ci dëkk boobu itam nag di ndar géej ca màggal gi itam nag mbooleem doomu seexul xadim yi nga xam ne nii fekke woon nañ ko daanañ ca yónnee daanañ ca dem rawatina nag doomu seexul xadim bi ñuy wax cheikh murtada mbàkke moom sax lañ jagleel bis bi ba na itam nag at mu jot lii di bëccëgug 5 septembre julli tàkkusaan gi nga moom lañ Soxna Daa Mbàkke nag moo ko daa jiite nag ci jiirug nekkinam ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag ci 2004 doomam sëriñ Mammoor Mbàkke moom itam nag moo koy jiite moo koy taxawu ànd kook itam nag mbooleem njabootuk seexul xaddim gi ak commission googu nga xam ne nag ñoom ñooy organiser ñaari ràkka yi ñuy ñaanal muritu seexul xaddim yooyu nekk ndar nag tey taxawu nag ñaari ràkkay ndar yi di bis bi nga xam ne nag ci la seexul xaddim siggiloon lislaam yi lim taxawoon foofu ci bureau gouverneur julli fa ñaari ràkka ya yàlla na suñ boroom saafara lii di jafe-jafe réew mi te guddal nag fanu xalifaam bii fi nekk te may muridi kàttan ak doole ak barke nag buñ mën a taxawoon ak bépp xew-xew nag bu ñuy fàttaliku seexul xadim amin seexul xadim amin seexul xadim